ki nga xam ne tey moo waral bés bi muy madame la ministre Zahra Iyane Thiam ñu naan jigéen ñi dañoo bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul madame la ministre ci lii nga xam ne defal na ko jigéen ñun jigéen ñi di ki leen daral lii tamit jar na ko muy madame la ministre ndax ñun ku ñu fay guddi ku ne ñu fay la bëccëg te laal nañ benn point bu sensible muy les mutuelles de santé li nga xam ne dafay jëm ci yombalal askan ak njaboot yi seen wàllu faj seen wàllu wërgu yaram te mu nekk problème fii ci biir Sénégal ñu waxtaan ñu bañ kaa wax ndax ñun ñëpp xam nañ ne li ëpp ci suñu askan amuñu couverture maladie universelle ndax ñoom ñu ngi ci secteur fermel ñoom nekk ñu ñoo xam ne dañ leen a embauché ba ñu war a mën a am couverture ñooñu nag ñoo nekk ci les mutuelles de santé donc bañ ci wooyee madame la ministre moom nag elle su lii entre les lignes mu ne fii nag war naa faa mën a dugal sama loxo ndax su ma fa dugalee loxo maa ngi jaamu yàlla ci jigéen ñi waaye maa ngi jaamu yàlla ci askan bi yëpp rawatina nag askanu région de Thiès rawatina nag waa Mbour mi nga xam ne moom laa fi taxawal tey di ko waxal. dama bëgg ne kenn ku ci ne bu àggaatee ca na nanu gën a sensibiliser ndax. 10 millions yi nga xam ni moom la ñu joxe par département dañu bëgg département bu nekk woo ay mutuelle de santé ya fa nekk toog waxtaan ak ñoom xam niñ koy dugale ci mutuelle de santé yi ba nga xam ni kenn ku ci nekk di nga ci gis sa bopp mën a adhéré ci mutuelle de santé di cotiser di man di faj te li ngay génne du bare kon ñu ngi jaajëfal ñépp di sant ñépp spécialement may sant nañ departement Thiès bi nga xam ni Abdou Sarr moo ma délégué pour ma taxaw wax fii di leen jaajëfal bu baax di leen sant. di wax ne madame la ministre ñun dañoo nekk ñoo nga xam ne ku ñu jàpp ñu jàpp la danga ñoo lebal guddi dinañ la fay ker kon madame la ministre jàppal ni lii nga ñu defal fa foo ñu woo dinañ la wuyu ndaxte bi nga nekkee ci ministère bi nga nekkoon seexlu woo. xooloo boddiwoo jëloo kenn nga sànni ko ñépp nga boole ku ñëw nga accueillir ko recevoir man mii li may ndaw ndaw ndaw li may gàtt gàtt gàtt danga may woo ñuy diisoo di jokkoo nga may envoyé message ma lay tontu ma lay envoyé message nga may tontu ca loolu mënoon na dox suñu diggante bañ a dox suñu diggante ak yow kon ñu ngi la ci sant bu baax ci sa humilité ak ci sa disponibilité madame la ministre parce que c'est pas évident am na ñoo xam ne bu ñu xasee yore ndomba tànk kenn dootu leen dégg waaye yow bokkoo ci ñooñu gàcce ngaalaam ca ñun jigéen ñi tamit ñu takku ñu takku jàppale suñu bopp jàppale mutuelle de santé parce que kat ku ne xam na ne wér ak ñàkk wér ñoo ànd ca nag boo yoree xaalis bu dul jeex ci deux jours mën nga ko cee yàq waaye boo duggee ci mutuelle de santé yi yàlla mën na def wax dëgg yàlla li ngay fay du demee noonu kon maa ngi lancé appel ñëpp képp ku bokkul woon ci mutuelle de santé yi nga ñëw bokk ci mutiel de santé yi xam leen ne xol bu sedd moo ñu jàpp xol bu sedd weesuwul ñu lay dugal biir ngaay lajjoor jiital la ngeen ànd ñu lay tëggal di la woyal ba nga yegg si waaye yéen lu leen di fay waaye ngaay lu leen di fay vraiment kontaan loolu nag bu amee du ma bett li ngeen def nii bu amee du ma bett présidente Anta wax nga ko sànq danga ne dañu la fekk si dañu leen fekk si si liggéey nit koo fekk si si soxlaam waaye waaye bu la teralee nga xam ne nag war na laa teral ndax état li ko tax a jóg mooy fekk nit ñi ci seeni soxla kon bu ñu nekkee ci gouvernement président Macky Sall dénk ñu liggéey. liggéey boobu ñu ñëw di ko def ci askan wi ñu gis ko ba seen xol sedd si ba ñuy wax jaajëf kon loolu day wane rek ne li ñuy wax ci liggéey bi nga xam ne état bi ñu ngi koy def jaarale ko ci ay filets sociaux jaarale ko ci ay politique de subvention buñ ko xeet parce que état li ko yitteel mooy redistribution économique de la croissance redistribution économique de la croissance nag boo koy def war nga ko gis ci tali yi war nga ko gis ci infrastructure yi war nga ko gis ci jàng bi war nga ko gis ci université yi gis ko ci jaww ji gis ko ci infrastructure portuaire yi mais li ci ëpp solo li nga xam ne moom lañu soxla ci suñu réew yi mooy ñu gis ko ci nit ñi te niñ koy gisee ci nit ñi mooy nga fekk kenn ku ne ca na mu tollool ca la mu yellool ak ca la muy yëngatu loxo état bi dugg ci moom sës ci moom rëkk te li tax kon sargal bi ngeen def am solo ci ñaari fànn la sargal bi ngeen ma defal am solo te jàpp naa ne du sax man lañuy sargal sargal bi dama koy mujj ëlbati delloo ko ci li ñuy wax les valeurs et les de vie et de développement sargal bi dafa am ñaari solo premier solo bi mooy wax naa ko mooy kon ñii xeeb naan état bi politique de subvention yi dafa mel ni toq ndox ci biir géej juum nañu ndax bu doon toq ndox ci biir géej lu mel nii du am yéen a ko wax yéen ne jox nañ ñu 30 fekk nañu ca fa ñuy liggéey am na fu mu fatt bunt kon boobu benn la ci solo bi bés bi am ñaareelu solo bi mooy ñi ko def walla boog ca ñamu dem muy ay jigéen ñépp xam lan mooy jigéen jigéen moo ne ca kër gi jigéen moo ne ci mbedd bi jigéen moo ne ci santé bi jigéen moo ci éducation bi jigéen moo nekk o début et à de tout développement jigéen moo nekk ci jàmm ji jigéen moo nekk ci stabilité bi jigéen moo nekk ci boole bi dajale bi pour lépp nekk benn jigéen maanaam moo yor puso bi ak wëñ bi di ñaw yéen nag ngeen doon ay jigéen benn ñaar ngeen ni fi ñuy yëngatu mooy fi nga xam ne bu amul lenn mënul am mooy sante bi balaa nga naan naam ne fa yéen yéenay ne fa ndax seen liggéey ci wàllu santé ci wàllu tabax nit ci wàllu wér-gi-yaram kon sargal bi dafa nekk lu am solo parce que dañuy wan ne fa ñu newoon démb ak bër ki démb dañ ko war a gën a mën taxawal kon fi may tëjee ndax comme ni ma ko waxee teraa nga mënatul wees li ngeen ma defal ndax man ba ma koy def mën naa ne dama doon liggéey def ko kon lu war la yéen nag lii ngeen def daf leen neex rek nga def ngeen def mais mënoon na leen bañ a neex jóge ci gox goxaat yi nekk diggante mexeeg ci waawan ak Cees ak fépp nit bàyyi yitteem ak soxlaam ci période bii ñu nekk ngir ñëw toog ne jaay def nit kenn mënu ko kon li ma leen di fayee ci loolu nag man lenn rek la mooy ñaan sunu boroom liggéey ba ñu tàmbali woon daaw ba mu may ñu ñu fekkee ren yaakaar bi ñu am ëllëg ci gën a mën a jàppalante ci gën a mën a ànd liggéey ci gën a mën a weccee li nga xam ne xam nañ ko mën nañ ko yéene nañ ko suñu réew ñu def ko te xam naa ne dina ma ko defal ndax yéen du ngeen ay cuune cuune mënul lii keroog bi ñu defee activité bi place de France ca Thiès keroog ba laata tàkkusaan di jot foofu xar na ñaar kon cuune mënul li ngeen mën te seen réseau mutuel bi réseau bu dynamique la bu am solo la ku ko xamul wala jàppalewu ko wala fulaalu ko wala faydaalu ko dóor na loxoom ci ëpp